Ben, gagné Gagnaï, euh, jeudi 11 euh, avril 2024. Il Dormé en Goytmen, Natagan Perki 1 500 euh, deux catégories, poids léger 500 000, poids lourd 1 million. Ben, Ingar Kosopmen champion Fomak, champion, Achigny Sim Nanga Poporo Lengon de Fomé Genon. Wow, grand le Messim Nanga Pah, Ziare Anuna j'ai to Jokanuna Galtamit, nous challenge nous Namosa vraiment. Wa Mikoy, mais que suis Gagnaï, mais je suis Chupan quoi. aha mi ref sëñ Abdou i gen cupaan sëñ Abdou Cupaan eh, a ci encore ke nonan koy ne refu sëñ Abdou Cupaan sëñ Abdou i mbaaga an exactement ke waralna teewaay fe meke xaye kon nanim ke na i mbaaga na an ke waralna teewaay fe mene xaye no a ah, ok waaw njom ne vraiment in saate fe i ngenu en plus xayna wena mbakan tamit gayen in wa invité ino yo i soom taxu i ngar mbuudir quoi korité yit uta soɓa in meen exactement waaw in ga i nga en général euh, nuun we andoona yee kan maafel bo nqaƴ njom euh, pour o kiin a nuun a lang njom ka jafeñ xa waralu kaaga waaw parce que anda rek ko reta boya andoona yee xeñof ci'katirang pour o fuuda yoqe quoi vraiment refee i nqeef ke da mbi'aa mais o layna lel o kiin o kiin xaƴna a yiif ake ndeɓange mana oxu refna daal xeñof o yiifof o gis ka o kiin o kiin ke fi'oogoona ten xoolooxo ten gimo i bo ka reta bo andoona yee waagkatiro fuuda haɗo eh, fof diggante jomne nden jomne nuun jomne faak fo jomne xaye har eh, haɗo lay ka in ten wa jomne faak fo jomne xaye anda déjà ɗeta keke laye un million ten doone men yaga o nan anga miñesa mais o nan anga presque un million mayoge quoi to kene waga lim poids lourd ke men anda mais mooy loolu daal vraiment jom ne ndiki daal a changer amayu quoi ten fo jom ne faak axa ndiki règlement qas ke ndokna kam jom ne a

o ɓis anga ten Dakar xaye mbage maaf rel poids parce que o waga nga ya balance te ɓisa ten poids lourd quoi i vraiment kaga tamit a mbaga ndimle a ten ten te a paax i mbir refna poids lourd a genoxanga xana ande poids lourd o xana seto gara maaf rel poids o xorna poids léger tamit fata xaƴela maaf rel poids léger quoi i a mbiyangan xana moƴo fel i nga euh, secteur nene ke naga Ndiaye Serigne Abdou faga no pir euh, ka ando naye ten moƴu mbaag men to a waaw pourtant bo ndiik sëñ Abdou sax xaƴe ñoom sax ne waagongalay i ngoor ke koy welaam taxam owey ndeefaxam tout le temps gari gari gari mais anda rek xana jega jeg ke laqalo ten mayu quoi mais bo xaye leyimo leyonge sax wasaam jom quoi bilahi i i mbaga cung retour de sëñ Abdou xaye waaw bo xaye ah. o weeke na maaf an ando ten o ga'angan o ga'a carrément xooxof no ten nu mbaag njomola naxa waaw a ah, parce que xa boya xe o le rek a mbaga jom mais anda rek mi moom o lele yongan jomes mi xooxes soom xoolu um no ke fi'ooguma parce que mbir waagiro jeg a kele leŋ ta lele o bufangaan xano maafin te a bufangirang maaf kirang anda mi kam bufoogu kam cafoogu kam fi'oogu ku felaxama quoi i vraiment a mbaagayo com koy mais en tout cas daal mi daal xooxes xoolu um no njom waagiim o kiin a ƴuug tamit bom layonge waro waago fi maaf kiin no kene fo kaana déedéet njom kam fooge o leŋ waagirano Ah, iga aussi eh, eh, mbak ne fa akima ke est ce que a jega différence eh, nde fo jamono fa na ciñala ndax a jega différence non mbap ne fa akima ke moom vraiment kam dame sax a moƴange fel moom vraiment dara changer e ten quoi vraiment kena lela fela trop parce que ke mbayanga leya moom wax ah, deg fa neex yàlla ka bisaxamo mbiño ngoɗu quoi aha bilaay ndax seigne abdou buga jego ɓiyonga na mafrel a ah, bien sûr mi kam nana dala e ay bugi morimo ɓi mbir menagam mais dedet o ɓeesa choisir angan jom fata mafrel quoi parce que an jom dara wopinan xala instant ke i ndefna mais andam me xaƴna tiga galankora xam no jom ɓe sart anga ba rok teen seetaan kim bo kaga galankorin quoi mais mi rokam no jom bo janga naak to fa buge jom anda kono ɓees a jeem anga jom xaye mi leyirong jang maalo sax mais a rok anga poussé sax um ande jom a bugu xam inu fi tel ke war xama quoi a yena te ke mafuna nda soɓanga men moromof sax fo ay champion sax o yenanga sax jege o waɗ kangare ko ken fo ko waro diid boyaw jeg ka ke rebe refe diida saɗar no lakas mais pour bugo jego quoi aha mais fa day ko ya kor go la pa pa e, ta ande njom dal vraiment calelo dal me ta na quoi kege xewna ndig no la ngol harole ka ten o yon ha man fa la xawna arbitre harole xaro ka ten kaga moom wax deg refe ɗat matema to refa ɗat sax o yon bir jegan sax yok no lang ba jega hawa arbitre kaga mom vraiment ran sen i mbir fo arbitre na dande ra hay o yon bi refe kaga dara vraiment est ce que aussi Ndiop pod ne a wara faga sans de sécurité non non non kaga tamit refé dat parce que boy lengo xela ndiki a leya dene numbar mbar ben arefa même pas xa gendarme xa sax dangé no ñom ne quoi kaga dato mais ya no 1 million 500 mille to jegiro sécurité tamit kaga refé dat parce que boy ñom ne fak ka waga gef quoi aha a jane ka rola ka supporter ke da cung de si abdou ou bien <laughs> bomba wa en tout cas dal Fatum laatire Seigne Abdoulaye jusqu'à présent dal xaƴe oxey na ƭat quoi a mbaga moof a cunga o feet ofe sax a mbaga nga'am quoi axa surtout wo maxey gara o maxey ciinjof quoi mosa andam ane spécial a mbi'a émission fo spécial inchallah